mais ñoom est-ce que jàpp nañu ko jàpp nañu ko noonu Moustapha mooy échec bi ma doon wax ci ci ci ci Macky Sall euh, euh, le fait que muy jéem a mettre euh, en tout cas euh, des bâtons dans les roues ci du ci côté Amadou Ba fexe affaire yi bloqué est-ce que loolu moom mooy euh, di ko indil jafe-jafe maanaam du du loo xam ne si ni après du ko indil woy bu rafet. ngem bu sa mbër ñu daan ko dafay mel ne yow la ñu daan. waaw mais gisoon nañ ko fi ci euh, liste parallèle yi xam nga am na ñoo xamante ne bennoo la ñu bokkoon. Hmm. mais dañoo battre campagne pour ay candidats yoo xam ne opposition bi la bokk. loolu amoon na fi ci élection locale yi donc loolu homme politique xam nga toujours dañuy wax dañuy dañuy dañuy dañuy évoluer avec euh, individualisme boudonnier euh, hmm. moom bu Boudon maanaam sa intérêt mooy nekk au cœur de laction hmm. action. boobu sa intérêt mooy nekk au cœur de l' intérêt muy moom lay jiital ci lépp. am na ñoom li ñuy gis ne Amadou bu faloo du seen intérêt. parce que combattre nañ ko bi mu nekkee ci parti bële mais ci biir parti da gis ay flanc am fa mi ngi mel ni jamono Idriss Seck ak Macky Sall. Mm-hmm. Idriss toog na fii mu ne créé nañ fi benn journal qui s' appelait Il est midi dirigé par Ndiogou Wack Seck. Mm-hmm. mu ne ñu may xëy di ma saaga suba ba ngoon te Macky Sall mi doon ji mu ne Macky Sall moom moo ne bi mu fi créé parti tuddee ko réew Macky Sall moo dem télévision mi duñ ko jox récépissé. parce que lu ñëpp bokk la na seeti beneen tur mhm. mu ne tey jii moom moo ñëw bi mu moom moo ma jox récépissé moom moo ma jox moom moo ma jox euh, mhm. récépissé récépissé parti réew mi waaw donc lan lan nga ciy jàngee kon toujours ku nekk sa intérêt fu mu nekk ngay xool am na ñoo xamante ne ni ñu xeexee Amadou Ba ni ñu ñaawee ci xare bi pour ñoom fi ñu toll nii ku jege Amadou sax waxuma la Amadou warul falu parce que bu faloo tey ji du sedd si ñoom ñooñu seen combat ak seen énergie ak lépp dañuy fexe ba Amadou bañ a gagné léegi nag xam même bu ñu xamee ne Boun Dionne ne fait pas le poids dañ naan nañ dem pour disperser voix yi cest pour gën a affaiblir Amadou ñi nga xam dañoo waroon dem ci Amadou ñu yenu leen ñoom ñëpp yóbbu leen ci bun jonn mm-hmm. su ko defee kii su amee 10 kii am 15 après pof yéen ñëpp ngeen daanu kenn ñëw romb mm-hmm. leen jiitu daal di daal di daal daal daal di gagné élection yi ngeen bokkandoo perte mooy li ñu mooy li ñu wax rek bu yoboo naa perte na ñëpp ñàkk waaye man euh, kële ki ki nga xamante ne bëgguma mu jot ko du ko jot ñoom foofu lañ toll ak Amadou Ba mm-hmm. mais pour man dafay crise boo xamante ne lu yàgg la parce que li yëpp nag mënul doon surprise par rapport ak président Macky Sall ni mu yoree Benno mhm. parce que da ngay gis ñu bëri euh, buñ ma santool ci yenn situation wala ñu yegg fenn fii ñoom ñooy préparer kenn mhm. ba ay jamono nga gëm ne kii moo fi nekk ba nga naan kii soo ko bëggul sox doo am li nga bëgg ci waaj mhm. mais defu ko dafa téye mbir mi téye ko téye ko téye ko ba nit ñi naan day dem troisième mandat du dem ba bi muy tànn sax nit ñi amul amul constat bu ñu deful Ba léegi jógul mu taxaw ne man je suis à la candidature. Mhm. xaw ma ndax def ngeen seetlu. si si musul taxaw mu ne je suis candidat à la candidature. Mhm. ba ñëpp doon wax naan pourquoi ñuy jox koo xam ne taal loo xam ne bëgg naa. ñeneen ñi ngi doon dégg rek ñuy wër plateau. Mhm. ñeneen ñi di claquer la porte moom bañ ko laajee dañ ne non moom dafa nekk ci parti dafay toog ak discipline mais nag ñu bëri ba mu nee damay toog ak parti ñu bëri xam nga lu lan lañ ragalee Amadou Ba. force bi mu am ci lobbying boo xoolee ba ci biir ñoom Moustapha Niasse eh, inquiétude bi nit ñi di gën a posé lan moo waral Moustapha Niasse yéex a dem rejoindre ko wala mu wane na mi ngi ak moom parce que Aminata Mbengue Ndiaye wane na ko. Mm-hmm. dafa récupérer kàngam yi nga xamante ne xool pourquoi PIT tey jii ne woon na élection am. mu mm-hmm. parce que daf leen récupérer. Mm-hmm. dafa dem ba daanaka appareil bennoo bi mu récupérer ko léegi pro Macky ak ñi ànd ak Macky ñooñu Macky lañ am mais amuñu bennoo. léegi moom mi am bennoo bennoo dara desatu fa force de mobilisation bi APR moo ko yor moo tax day nekk si benn dilemme en fait parce que ñi nga am amatuñu doole tu a l'AFP rien n'est responsable APR même si Moussa Fane waxagul tu as le parti socialiste. tu as PIT tu as LD tu nangam ak nangam parti yooyu yëpp boo xoolee ñu ko wër nii ñëpp presque allié lañ. mais APR authentique bi. ñoom Thérèse Faye ñoom Mame Mbaye ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp. Farba Ngom ñoom ñëpp. dañu toog jàpp seen jàmbur. si léegi yow ñër kële moo yor nit ki Macky moo yor nit ñi yow yor nga hérité nga coquille vide bi. moo tax mu metti jàpp ji si ñi nga xamante ne euh, ñoo ànd ak Macky ñoo xamante ne am na ñenn nit yi bon am na quelque exceptions nag ñoo xamante ne génn nañ ñëw ànd ak moom jàppale ko mais li ñu ciy comprendre rek mooy euh, situation bi euh, situation bu compliquée la APR jamono ji mmh. bennoo sax laay wax de façon général parce que suñ fi bëggee tante le pari jóge ci Amadou Ba am dem ci Bundoon c'est perdu d'avance. Mhm. Euh, parce que loolu cela suppose tey jii nit ñi militants yi ngay yóbbu mais yóbbu woo ñi nga xamante ne ñooy yi. buñ fàtte loolu. Mhm. te militants yi par rapport ak électeurs ñu sax ci fichier militants yi donc militants yi mën nga ñëw ne militant sàngam. wala samay militants voté leen am euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne or tu as wala deux par rapport à un fichier de sept millions d'électeurs donc loolu lan lan day yàqal boppam parce que ñu bëri dinañ gis ne am na benn esprit sot wala yërmande xam nga Amadou Ba dafa commencé di gagné sa yërmande boobu ci hmm. ñenn ñi day di wax ci moom di koy yërëm di am benn taxawaay bi eh, di am benn empathie bi jëmale ko ci moom eh, loolu mën na doon loo xam ne dina ko dina ko dimbali du bëri ah. hmm. parce que comme ni ko waa ji yi doon waxee rek fi ñu toll nii ñëpp pare nañ waaw kon indice yi bëriwuñu xam nga Sénégal suñu société yi bokkul ak ay sociétés yi nga xamante ne société occidentale hmm. yooyu gis ko xam ne day toog ay ay ay ay ay organisation ne dañuy recevoir candidats yi jël programme ñu toog ñu étudier ko ñu ne lan la wax suñu programme waa secteur informel comme par exemple ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum pêche bi seen association bi hmm. ñu ne ñii lan lañ wax suñu programme ñu teg teg teg après ñu toog ñu ne ñun kat wax dëgg yàlla suñu kuréel nangam jàpp nañ ne kii moo fi am meilleur programme par rapport ak ñun mais chacun est libre mu voté ki ko gënal hmm. xam nga loolu c'est une façon eh, moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu gën a jël en moo hmm. gën a jël en considération mais fii loolu amu fi damay votel Mahfous parce que kubu Mahfous bi daf maa neex damay votel Mahfous parce que Mahfous ñu muy wartoo daf maa neex looloo fi am damay votel Mahfous parce que yaakaar naa ne Mahfous Euh, du sàcc sama xaalis. dama mhm. koy voter parce que yaakaar naa ne mën na yor réew mi parce yaakaar naa parce yaakaar naa or euh, moo tax cette fois ci gis naa fi ñu bëri léegi les ñu ngi gën a exigeant ci lu jëm ci programme yi. parce ngi gis ku nekk di laaj programme ani programme mu ñu wax ci nit ñi dañ koy soxla mais. mën nañ la ko jox mais ñoom daal en bu ñu demee ci nit ñi leneen la wax mais duñu wax ci programme bi c'est un problème. est-ce que nit ñi nañ leen ti boo fi nekkee di wax ay waxi programme bon ñi lay déglu bëriwul de. Mhm. parce que damay damay déglu yenn saa seen temps d'antenne yi. mais dina ñoom dañuy junj seen programme et man pour man foofu sax lañ war a gën a bàyyi xel ci programme parce que foofu nag. Mm. boo xoolee ñi fay cliquer di ko seetaan yi mooy ñu bëri ñi nga xamante ne voilà. Mhm. bëgg nañ xam diw lan la proposé wala lan la bëgg indi. Mhm. donc fii moom indice yi bëriwul pour man bëriwuñu Euh, seen carte mi ngi seen poche bulletin baa ngi ci beneen poche bis ba la ñuy xaar ñu génnee enveloppe ak bulletin bi dugal dem ba tey. Mhm. Mhm. laata ba ñuy wax ci euh, Kébé euh, c'est-à-dire Amadou Ba li ñu ciy wax li ñuy wax ci moom li ñuy wax ci moom yëpp moom def nañu ko seen seen candidat. parce mhm. que li ngay li ngay wax nii mooy que ni affaire authentique bi ñoom ñoo àndul ak moom. Eh, te ñoom la ñu waxoon mooy eh, mooy Macky Sall kum ñu tànnal. Hmm. Eh, dinañu ànd ak dinañu ànd ak moom Macky Sall tànnal leen Amadou Ba ñu ne duñu ànd ak moom c'est-à-dire est-ce que li ñuy wax naan dafa am problème problème boobu xamuñu ko woon laataa ñuy tànn ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba parce que Macky Sall nee na après def nañu ay concertation euh, pour mën a tabbu euh, Amadou Ba comme candidat. waaw mais xam nga. si réeru amul foofu tamit. non réeru amoon na fa parce que bu njëkk ba réeru fi mu njëkk amee mooy digganteem ak Abdoulaye Daouda Diallo parce que foofu la xëccoo bi njëkkoon metti après Mohamed Boun Abdallah Dionne parce que ñett ñoo ñëw ci gënoon naa fës mais bi mu demee ba Abdoulaye Daouda Diallo ne ko léegi d'accord naa dama ñëw ànd ak yow Abdoulaye Daouda Diallo bi mu koy wax boobu Abdou Mbow ngi toogoon ci moo yoroon microcentral yi mhm. moo doon wax Abdou Mbow moomu tey jii moo daw yenu proposition de loi bu bu bi mhm. gàccu ko ne ak dee dina jàll te mhm. proposition mooy jiiñ Euh, mooy jiñ Amadou Ba de corruption mm-hmm. kon ce qui veut dire que la woon démb ba léegi wonniwul te proposition boobu noonu su demee ba yegg noonu tey ji mais am nañ bénédiction président Macky Sall ñëpp xam nañ ne assemblée nationale dara du fa jaal te neexul président Macky Sall nañ waxante dëgg lan moo xew entre temps comme ni ko Mahfouz waxee mais su fekkente ne bañ koy fal dañ naan xamuñu no bañ ko falee après lan nga doon dégg Amadou Ba dafa war a rassurer. Mhm. am am na des gens wax loolu dafa war a rassurer dafa war a ubbi dafa war a yaatal mais bu ñu la falee Mahfouz mais boo ma wóoloo wóolu Kébé ñoo lee gën a jege. Mhm. mais su fekkente ne yow dafa am benn dóor boo xamante ne Macky Sall la gënoon jege mu ne kut ko kut dama war a ñëw tafuwaat ci wetu wetu wetu wetu Mahfouz problème dafay am. Mhm. ku nekk say homme de confiance ñoo lay entouré. Mhm. léegi say homme de confiance wër la ñu ne danga nga nekk commencé léegi di di di di di. di beew di di beew di beew. Mhm. dafa commencé di beew. léegi mhm. dañ koy woo sa mun ñu ko jot taman APR maa ko formé maa ko ñàkk dara daaw fi te yëguma ko léegi amul damay jékki-jékki du ma ko yëgal dara. léegi colère boobu commencé di màgg te li ko gën a li ko gën li ko gën a féddali li ko gën a fésal mooy mouvement bi nga xam ne moo ëmb jigéenu APR yi. ba ñu déggee ñu ne mouvement ba dagg na ci digg bi benn parti bi Ndeye Saly Diop Dieng aw ni beneen parti bi Thérèse Faye aw ne ak ñoom Néné Fatoumata Tall ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñoo taxaw ñu ne ñooy Macky Sall dans nos veines ñoom jéggi Diop ak et consort ñoom ñooy mm-hmm. Macky dans nos veines mm-hmm. ñoom Ndeye Saly Diop Dieng consort taxaw ne la ñoom ñooy euh, ñoom ñooy APR ñoom ñooy Bennoo Bokk Yaakaar mm-hmm. jigéenu Bennooy ñoom ñi ngi ànd ak Amadou Ba ñu ngi wër di campagne borom Macky dans nos veines Amadou Ba Zahra ak amadu Ba Zahra Iyane Thiam Zahra Iyane Thiam ak moom mi ngi ci Amadou Ba la nekkee kon nga gis ko bi mu xaajoo noonu ñi ñële ñële dem nañ ànd ja Amadou Ba parce que da ngeen di gis image mais ñeneen ñu ko toog seen kër tegle seen yor seen socc di di seen journal de la ah. campagne ah. te ci mouvance bi la bokk parce que dañu dañu jàpp ne euh, man mosuma gëm lan mooy dafa war a rassurer lan looy looy rassurer. waaw kan la ñuy rassurer ak lu ñu def. di rassurer yaa ngi ci yaa ngi woon ci. yaa ngi woon ci waaw. ba ba ñu tàmbali kay looy rassurer. waaw looy euh, wax ni ñaari question boobu yéen ñaar laa koy jox ah, ñi wax ñi ñi ngay wax ni euh, Macky la ñu àndal il faut ñu xam ni tamit makki bokkul ah. bokkul Macky Sall def na temps ba pare day dem donc il faut ñu am keneen koo xam ne si nii tamit moom mooy continuer mm. liggéey bi Macky Sall doon def mais bu ñoom itam bu ñu Macky Macky Sall jeexal na il a fait son temps day le 2 day dem Macky day dem léegi loo fi nekk Macky Sall di dem le 2 nga bëgg fee nekk di ñu wax waxi Macky Sall waaw xam ñoom ah, loolu c'est un problème ah. loolu mooy ñoom ñi xaar ñoom ndigal la xaar en fait Macky joxoñ leen joxoñ bu leer leen leen Amadou Ba leen leen bi ah. mënul passé yaa dégg ñu ne Amadou Ba mooy suñu candidat def ko candidat mais xam nga xam nga xam nga tey nit ah, bu la jiitlee pare di la fakkatal tey président Macky Sall joxañ bu joxe Amadou ba pare mais ñuy doxalee nii ñun ñëpp xam nañu que président Macky Sall mi àndul ak Amadou Ba hmm. je dis la vérité tey mais tey Amadou Ba fu mu taxaw bu gëstu woon dafa waroon a gis président Macky Sall mu taxaw sénégalais ñi leen kii mooy man man maay moom. Mhm. bu ngeen di voté voté leen Amadou Ba mi mooy sama candidat te mooy candidat bi nga xam ne moo woote continuité en fait. Mhm. jàpp ci Amadou mooy dëgg-dëgg jàpp ci Macky. jàpp ci euh, waaw mais ma nga toog fële tegal ay tànkam rax ci dolli matériel ak même euh, moyens yi mu war a campagne sax mënuñu cee jot boobu ba léegi. Mhm. tey jii Mame Mbaye Farba Ngom yi nga xam ne tey ji président Macky Sall fu ñu leen fa photo su leen nii fa la ñuy taxaw fa la ñuy jubali. boobu ba léegi gis nga ñoom ni ñuy doxalee en fait. ça veut dire que ñoom jotuñu ay ordre yu précis. moom lay wax mm. sànq ay mm. ordre si ni yu leer la. moo mm. tax xëy na ñoom ñoom ñu ngi toog tey nii Macky Sall daanoo fen mooy que ni président Macky Sall ba man moo tax man ba tey ma gëm ni président Macky Sall est-ce que ne ba tey jóge na ci logique Euh, jóge jóge ci nguur gi la 2 avril c'est ça en parce que bu fekkee ni ñi ngi toog fi naan daanoo vingt koo xam dafa war a dem mhm. loolu y'a problème mhm. dafa war a dem nga naan Macky daanoo vingt ah, lan mooy projet bi li projet bi ci ginnaaw loolu la ñu war a xam en moo tax ma ni euh, vraiment il faut que ñu def très parce que jamono jii nii euh, Mahfouz mhm. vraiment en tout cas toll nañ ci mois yu doy waar mais la fait que le fait que Macky Sall tamit maanaam joxewul en tout cas joxewul doxewul doxin bu leer est-ce que dafay wane tamit comme en tant que président de la république parce que gis nañu bi yëf yi eh, bi ñu waree dem le 25 février ci élection yi gis nañu ba la veille avant la veille sax gis nañu dara dara yëngatuwul ci rang wu bennoo yi parce que am na lu mu xamoon moom mais su fekkee dafay doxalaati ni li nga doon wax léegi dafay dafay ñëwaat dafay wane que ni léegi le fait que mu rappeler Amadou Ba daf moom est-ce que dafay wane que ni élection dëgg-dëgg dafay am parce que boobu ba mm-hmm. léegi mën na nekk dafa nekkoon ci ay doute mm-hmm. euh, que ni est-ce que élection bi dina am moo tax ndax buggul woon a génne les moyens buggul woon a am yenn taxawaay bi après mu mu casser ce ce loolu aussi mën na expliquer cette situation. xalaat xalaat naa loolu tamit li tamit ma bi ma gisee affaire di évoluer wu daanaka tiens peut-être dañu dafa am parce que li ñu doon sukkandiku fi ñu benn bal la dese. Mhm. te bal boobu daf ñuy dugal foo xamante ne fu fu fu doy waar lay doon. xaw ma mhm. ndax loolu moom pour man sax président Macky Sall ku ko jege du loolu musiba lay doon léegi nag su ah. boobaa nag xam nga cour suprême dafay taxaw conseil constitutionnel taxaw mën a crise institution taxaw na mhm. damay jël article cinquante deux daal di toog si dëkk bi nag jël pouvoir jël pouvoir bi toog si mhm. àpp lu ñu xam mais loolu daf ñu dugal ci beneen mbir mhm. toog koo xam ne dañ la dë nga war a dem nga ne damay toog loolu pour man président Macky Sall sax du ko nangu te tey ji moo tax ma ne jàpp ne kon bi li amee démb ma ne kon certainement dinañ dem incha allah ci jàmm ak salaam dem ci élection yi le vingt cinq février bi euh, vingt cinq mars bi ñu bi ñu bi bi ñu dëgmal. Mm. mais tey ji bu ñu bu ñu revenir ci li nga doon expliquer nii léegi nga ne est-ce que du liñ génnee fonds yi mm. dafay wane ne affaire bi am na lu ñu xam ne dafay dafay dafay avancer am déet bokk na ci mais am na tamit leneen loo xam ne tamit euh, dafa dafa jara bàyyi xel gis nga Amadou Ba.